Assalamualaikum warahmatullahi tay tey dikkaat nañ ak yeen ci seen jang anglais ci wolof mu seen chaîne youtube bo xamni da leen indil ay bind ci lak wi di làkku àngale tey ñu dikk ak yeen ci bind bi nga xamni moy mooy bind bi nit ki wara ñëk jang ci aw lak muy the alphabet of english manam abajadawu anglais lettre yi nga xamni mom la anglais tonko lettre nak ñu ngi ko tënk ci ñaar fukk ak juróom-benn ñaar fukk ak juróom-benn ñu xaaj ko ci ñaari xaaj yenn yi ñu ngi leen tuddee consonants maanaam coowaan wala vowels vowels mooy li ñu tuddee wooye maanaam euh, ni nga ni nga xam ne noonu nga ko amee ci yeneen làkk yi lu ci mel français nga xam ne dangay am consonne am voyelle bu ko defee. dañuy ñëw ci yéen leeral leen lettre yi naka lees ko war a tuddee maanaam naka lañ ko war a jàngee ci bu ko defee yow mi déglu nga bàyyi xel bu baax a baax niñ koy tuddee niñ koy niñ koy prononce niñ koy prononcé maanaam di prononciation lu am solo la lu jar bàyyi xel la ci loolu laay jaaree rek ni leen saa yoo xam ne yéen a ngi déglu seen jàng anglais ci wolof dee leen bàyyi xel baat yi nga xam ne ñu ngi koy tudd ci anglais bu leen neexee ngeen commentaire ci suuf laaj baat yooyu lu muy wund ki noonu tamit ngeen di jël saa yu nekk boo leen déglu ngeen yor bic ak seenu kaye di bind euh, li nga xam ne mooy bind bi bu ko defee loolu moo leen dimbali ngir man a topp bind yi ndax dañ ko bëgg a tàmbalee ci njëlbeen gi ba ci mujj gi bu soobee la kon nu dikk ci naka lees war a tuddee lettre yooyu maanaam looye yooyu nga xam ni moom la wolof moom la anglais am a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S T U V W X Y Z wala Z kon loolu mooy ñaar fukk ak juróom benn looy yi nga xam ni maanaam araf yi nga xam ni moom la anglais am ni lañ ko waxe woon ci njëlbeen am na ci yoo xam ne wooyee la leen tuddee maanaam mooy vowels mooy a i o u a u ñeent juróom yooyu mooy juróom yi nga xamante ni si ni moom mooy euh, wooyee yi yi ci des moom la ñu tuddee consonance maanaam euh, coowaan yi kon seen seen youtube jàng anglais ci wolof mi ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku ci yéen ngeen bindu ngir ngeen mën a am bind yi ci nu gën a gaawee ba beneen yoon jërë ngeen jëf